wax ma dara ñu arrêté Sooraya ko mais ngalax yi ñu bëgg a tere man moo mën a xare lan moo tax Macky Sall ni ngalax yi du am bu ne dama ko naa lekk ngalax bu am koko am banaana ngalax bu ne lekk naa ko Sall yooyu sama yoon nekk si dérangé mais ngalax yi moom fas la sa kanam de lu mu demee noonu bàyyi temps yi jàpp sa ñaabur raw <laughs> fas sa kanam lu mu demee noonu. dama ah xoolal feebar bi feebar bi dugg ci dëkk bi rek. ah bon ah déet xoolal rek ni ni situation yi ni situation yi am fii. mais man problème bi ma am mooy jumaa yi ñu teg garaawul seet man ay jumaa garaawul. église yi tëj nañ ko waxuma dara yaa ngi dégg ñu tëj salle de musculation yi. waaw champion de yow tey gars yi indi nga mer bi de. Fall mu demee noonu Fall non non mais lan la. dëkkandoo yi mën naa dem kër Baye Père gi fekk leen tëgg dëgg di xëy ci kër gi. ah man leen tëgg a yi xëy xanaa maa fa leen togg Ah, ah, hmm. maafe maafe leen toog ma dem ca mbalit ma xool gis ba ay xooxi buy loolu daa mën a ne maafe day ànd ak buy ah, ñoom kay bu fekkee dañuy ngalax di ko làq nokk nii ba korte tabaski ba korte tabaski dee leer ci ñaf nit ba di ko dir Sylvie Sidi Kouraka Zéphini écoute c'est une vacance à mon cœur qui me pousse à l'avant c'est le coronavirus qui nous a quittés qui nous a interdit de voir la nuit. C'est coronavirus qui nous a interdit. de te ma belle. Ma coronavirus qui m'a interdit de t'aimer. Ma belle, casse Ma belle, frappe Ma belle, c'est coronavirus qui m'a interdit de t'aimer. Ma belle, c'est coronavirus. c'est le Covid-19 <laughs> qui m'a tere qui m'a interdit de t'aimer. horaire moo ni kumba bi nan ko bàyyi te toog fan dëkk. Corona ba comme que ma nga foofu nag nan ko yamale foofu bu ñu koy ni mbooro gi lujum bi wàllum lujum bi ni comme ni ko gars yi waxee lujum bi den leen ko yónnee nañ nañ yam dëkk dëkk ba te dimbali noonu te yàlla tax sonn nañ ci Corona bi torom nag tubaab bi nasaraan si nan toog seen dëkk ñun esclavage sax mel ni ci moom lañ ne ba léegi ñoom dañoo dañoo ban dañoo topp suñuy maam ba seeni nanu dimbali waay nekku nu esclavage waay ñu bëgg noonu rey fu ne nu dugal na fa fu nit ku ñuul rek nekk seen eh, nasaraan bi fekk na fa léegi corona corona gi lu ko ma dara ñu arrêté sore ko mais ngalax man moo moo tax Macky Sall ni ngalax yi du ngalax bu ne dama ko daan lekk daan naa lekk ngalax bu am koko bu am banaana ngalax bu ne lekk naa ko Macky Sall yooyu yëpp boo ko tere nga jumaa yi sax man sama yoon nekk si déranger mais ngalax yi ngalax mbër temps yi moom fas nga sa kanam de lu mu demee noonu bàyyi temps yi moom da jàpp sa ñaambur raw da nga fas sa kanam lu mu demee noonu dama fas sama kanam ah xoolal feebar bi feebar bi dugg ci dëkk bi rek ah bon ah déet xoolal rek ni situation yi di situation yi am fii man problème bi maam mooy jumaa yi ñu teg garaawul seet garaawul man ay jumaa garaawul église yi tëj nañ ko wax ma dara yaa ngi dégg ñu tëj salle de musculation yi waaw champion yow tey gars yi de. Fall mu demee noonu Fall non non mais lan la dëkkandoo yi mën gi fekk leen tëgg-dëgg di xëeñ ci gi ah. Ah? man leen tëgg-dëgg yi xëeñ xanaa da ngeen di nga wax ma maafe leen togg <laughs> ah. maafe maafe leen togg ma dem ca ma xool gis ba ay xooxi buy loolu daa mën a ne maafe day ànd ak buy ñoom kay bu fekkee dañuy ngalax di ko làq nokk nii <laughs> ba korte ba korte tabaski dee leer dinaa ci ñaf nit ba di ko